rose euh, en danger donc war fi dalal ki nga xamante ni moo di Ibrahima Mbaye euh, président de l'association Art euh, Lac Rose donc qui est déjà là ñu ngi lay ziar bu baax a baax. ñu ngi leen doon ziar di leen nuyu di leen sant ci invitation bi. Mhm. di nuyu Gomis ak Mélanie. Mhm. ak Salma aussi di la rafetlu woon ci liggéey bi. Mhm. li Walfadjri def si Sénégal. dëgg la dëgg jëf mi ngi noonu ayca Mélanie ñu bàyyi leen. Ibrahima Mbaye ñu ngi lay dalal ak jàmm. merci beaucoup tout d'abord ngay président association Aar Lac Rose. lan mooy Aar Lac Rose ak lan a tax ngeen taxawal Aar Lac Rose. waaw Aar Lac Rose donc benn association la boo xamante ni dafay yëngu si wàllu environnement. Mhm. la protection du lac Rose si wàllu gàncax geek ci wàllu environnement bi mais aussi tamit. si li nga xam ni moom mooy bi nga xam ni moom moo ko wër. pour mën ko euh, xayma euh, man ko tamit protéger. mais mën a tamit sensibiliser population ba nga xam ni ñoo fa nekk duñ koy aare ba lag bi ñu mën ko téye ak fukki loxo ba mébét yi fay am yëpp ñu mën ko xeex ba mu mën a toujours nekk Lac Rose. d'accord ñuy wax euh, Lac Rose waaye ci turam mën nañ wax ni que Lac Redba lañ koy mais de Lac Redba à tey est-ce que mën nga ñëw dellu si ci historique Lac Rose voilà alors tout d'abord ma ma ma nuyu mbokki Lac Rose yi ak mhm. waa ñàgg ak waa ñàgg pour nga xam fa laa dëkk léegi mais tamit dina nga xamante ne dafa ñëw tamit si turu waa syndicat initiative bu tourisme du Lac Rose euh, ñoom tamit euh, ñu fay liggéey donc boo xoolee historique u Lac Rose auparavant Lac Rose ñëpp a xam na ni dex la woon boo xamante ni dafa taxoon ak géej gi mais ay jamono dafa amoon mooy année bi nga xam ne amoon nañ décor bi mooy les années 70 euh, ci la ñu perte daanaka lag yëpp ba mu des lag rose mm-hmm. boobu nag après dune de sable maanaam mooy suuf si moo avancé ba séparé lag bi ak géej gi mais teew lag bi te tuuti euh, autonome euh, si ndoxam ndox moomu nag bi nga xam ne décor bi ñëw na amatul ndoxu géej léegi ndox moom moo dem di di former ak ay micro-organismes ñuy woowee les bactéries mm-hmm. ak concentration xorom bi nga xam ne ni ndoxu géej gi bàyyi na koon fi mm-hmm. ak benn ban bu si bu nekk suuf bu ñuy woowee de l'argile noire loolu moo def transformation couleur rose bi mm-hmm. ba couleur rose boobu nag commencé di attirer des milliers de touristes dans le monde pour ñëw di nemmeeku parce que dafa nekk une phénomène de la nature parce que bëriwul àdduna bi foofu yi dem dafa gis une étendue d'eau comme ça rose ñu di détawaay ñu fay tibb xorom ba pare mu am benn particularité si tibbum xorom yi parce que ñëpp xam na ni Sénégal fépp fu ñuy tibb xorom euh, da ngay dangay dangay da ngay def des mare salants comme boo demee euh, Saint-Louis ak Gandiol wala nga dem Casamance wala Joal. Euh, wala Kaffrine euh, et tout ça mais fële moom ndox mi si biir xorom euh, xorom bi si biir ndox mi koy tibbee. Mhm. loolu dafa nekk loo xamante ni particularité la. Mhm. deuxièmement mu nekk foo xamante ni da ngay am le dune de sal mooy la bande de filao am vraiment benn environnement boo xamante ni. Mhm. ko war a préserver. parce que c'est une merveille de la nature. d'accord Lac Rose couleur rose bi dafa am waxtu boo xamante ci la fay nekk wala soit à tout moment boo demee Lac Rose da ngay gis couleur bi da nga ko fay fekk wala dafa am saison maanaam moment bu xam ne si approprié pour nga mën fa dem pour gis décor bu nice bi voilà normalement y avait une belle mais malheureusement malheureusement ces temps-ci on a perdu couleureuses boobu moom perdre nañ ko carrément te xamaduguna kañ lay doon parce que tout simplement euh, nawet bi ñu génn nii ak balaay net bi sax amoon na ay conséquences sur l'urbanisation sur euh, yenn euh, agression yu si nature bi mais nag li gën a doy war ren nag mooy mooy na euh, nawet nawetu ren bi daf ko dénaturer complètement mm-hmm. actuellement fu ñu daan tibbee soixante seize voire vingt quatre mille tonnes de selle mm-hmm. par an tey jii boo fa demee dañ fay euh, dañ fay napp dañ fay napp jën. Mhm. loolu mu nekk ci jafe-jafe yi donc mu changer mhm. complètement écosystème bi mhm. actuellement yi nga xamante ne euh, jamono ji yéen a ngi koy jànkonteel comme ni nga waxee ndoxu nawet bi nu mu nan ndox bi nan la def noonu ba daal di yegg si bay euh, dugg ci géej bi. alors euh, tout simplement parce que xam nga Lagos aussi tamit c'est le point le plus bas dans la région de Dakar c'est-à-dire que c'est bassin trans bassin la euh, si boo xamante ni bassin versant la li nga xam ne moom moo daan andi ndox mi mooy ndoxu taw yi moo ko daan remplir tout doucement pour euh, di ko alimenter parce que bu noor bi jotee ndox mi dafay xew a ak ndoxu xorom bi ñu si tibb ak lépp. Mhm. mais bu fekkee nag nawet bi ñëw na ndox mi daf koy remplir mais nawetu ren bi nag moom dafa ñëw surchargé ko. Mhm. ak euh, benn volume bu extraordinaire parce que mu ngi nekkoon 3 mètres de profondeur léegi mu ngi si à mhm. après nawet bi ñu gis ni tamit euh, avec l' état du Sénégal je crois que man mooy erreur bi gën a rëy si àdduna bi tey jii euh, jël ay ay ay ay ay eau de pompage vraiment di ko sort si biir lag bi ñu gis ay entreprises yoo xamante ne tey jii ñu ngi def ay construction euh, immobilière aux alentours du lac. Mm-hmm. di def seen ay canalisation si benn canal naturel boo xamante ni te yóbbu ndox moom si lac bi ñëpp ñëpp ñu bëgg fi def ay branchement loolu day wane ni vraiment dañu nekk si yoon boo xamante ni dañuy yóbbu la Lac en voie de disparition. Mm-hmm. parce que foo xamante ne dañ fay tibb xorom nit ñi di lekk xorom bi nekk produit boo xam dañ koy exporter à l'étranger mm-hmm. mu nekk loo xamante ni koy xeeb mais lu am solo la comme mm-hmm. nañ bu amul si ci ñu jàmbat ko bu manqué ñu jàmbat ko mais c'est chose qui est extraordinaire mm-hmm. mu nekk point boo xamante tamit dafay indi emploi si zone boobu des milliers de personnes ñoom ñoo fay liggéey donc xorom boobu demee ba nga xam ne dafa nekk en danger pourquoi ay ndoxu euh, canal de euh, ruissellement mhm. yooyu yëpp euh, te jii dafa indi benn benn danse écologique mhm. au-delà sax bu ñu bàyyi aspect touristique beeg aspect visite beeg yooyu mais askan bi nga xam ne askanu Sénégal am nañ ko si production xorom bi ak consommation bi mhm. ak coloration rose bi de la la rose je pense que dafa nekk benn danger boo xamante ni état du Sénégal mesuré wul laata muy def jëye ju mel noonu parce que mu nekk ay jafe-jafe maam <laughs> après ma <laughs> <laughs> dugal mu nekk ay jafe yi nga xamante ne fan yi yéen a ngi koy jànkonteel foofu noonu ci gox gi waaye dafa am ki nga xamante ne nag moom lañ dénk lépp li nga xamante ne mooy environnement hmm. ndax euh, def ngeen ay démarche wala def ngeen alerte pour rek bu euh, mën ñëw saytu wala ut euh, taxawaayam daal ci mbir mi nga xamante ne jamono ji moom moo xew foofu ca zone boobu di la Croix <laughs> xam nga des fois damaa ministre Sénégal dafa mel ni ñoom tailleur leen njëkk a jàng avant tout parce que koo wax ay mesures la ñuy wax di nga paa bi wax na ko sànq <laughs> d'ailleurs paa bi euh, ministre euh, bi nga xam moom la dénk wàllu environnement bi mu njëkkee ñëw mhm. lu mu wax on va prendre des mesures <laughs> encore des mesures léegi mhm. le problème mooy li nga xam ne moo doy waar mooy euh, Lac Rose ba mu sanc ban ko xamee ba léegi c'était la première fois d'ailleurs ñu fa benn ministre de l'environnement mu ñëw Lac Rose pour mën a saytu parce que dégâts yi bari woon na Euh, andi woon na problème parce que ñun sax visite ministre boobu d' accord mën naan jàpp ni visite nemmeeku si la mm-hmm. mais mën nga xool tamit benn visite la woon pour trouver une solution comment déverser les eaux yi nga xam ne ñoo nekkoon Kër Massar jaxe a tout ça mm-hmm. pour ut benn solution entre guillemets mm-hmm. léegi nag mu ni ñu dinañ jël ay mesures ñu def ay dinañ jël ñu def prélèvement pour l'écosystème ndax ndox mi ñu fay indi ban conséquence wala ban dégâts lay indi si wàllu coloration rose bi ak exploitation du xol bi du sel bi ñu def fa benn benn waxtaan bu ndaw après la suite ñu defaat beneen CRD à Diamniadio mhm. encore CRD comme ni nga waxee parce que bu jeexee ñu taxawal CRD mhm. CRD ñu ñu waxtaan fa ba léegi ñu xaar résultat CRD boobu parce que dañu woon comme président de la République waxoon na si il a fallu que ñu def un benn CRD en urgence. Mm-hmm. pour tënkee que lépp loo xamante ni ay problème la si wàllu environnement ci wàllu bétonisation bi fay am parce que bétonisation bi tamit problème boo xamante ni. Mm-hmm. vraiment dafa yàq l'écosystème du Lac Rose. xool canalisation yi nga xam ne sociétés yi parce que am na pas cité de non mais ñi nga xam ne daal woon na ni dañ leen loolu sax moo indi woon coow ba population bi dem fa euh, defoon fa benn problème ak ñoom ba arrêté chantier bi d'ailleurs sa ministre la nee na bi arrêté na pour le moment pour ñu trouver benn plan d'assainissement ak tamit état du Sénégal trouver benn plan boo xamante ni dina fa am ay bassin de rétention naturel yoo xam ne na ko def artificiellement pour que mën a récupérer les eaux pluviales parce que c'est dommage quand ñuy perdre eau yooyu yëpp Euh, artificielle mhm. yoo xam ne population bi ko mën a jël di di fa di bay bayu bayu dër wala bayu nawet et tout mhm. ça mhm. mais malheureusement ndox moom yëpp koy dañ koy sànni si biir lac bi non seulement yàq l' écosystème de Lac Rose mais ba pare tamit des désagréments sur euh, euh, li nga xam ne moom mooy xorom beek coloration rose bi nga xam ni c' est quelque chose loo xamante ni doomu aadama mënuñu ko defar nature bi moom moo ko composé donc lu xamante ni borom bi subhanahu wa taala moom la ko may doomu aadama dafa war a fexe nu mu koy yàq na rek mais pas nu mu koy yàqee parce que bu ko yàqee du ko dootu mën dootu man li ma bëgg a wax rek mooy au delà bu ñu waxee aspect euh, environnemental bi ñu gis ne euh, lii sax mun na euh, jàppale touristes yi ñu mun a ñëw si foofu diwaan boobu di xool lakk rose bi mais bi ma déggee ngay wax dafa mel ni jamono ji lac bi rosatul. le lakk ne plus rose donc mu doon la nga xam te ne peut-être sàggante la ba nga xam mu ngi jógee si suñu côté autorité parce que tey mënuñu ne. dañuy doole secteur touristique bi bu pare euh, Lac Rose ñu koy bàyyi noonu mu daal di disparaître man ci sama xam-xam bu gàtt j'espère que au niveau mondial Sénégal kese moo am Lac Rose je ne sais pas nag peut-être aussi. Euh, mhm. euh, ci lu leer mais li ma d'après bi ma li ma xam man Sénégal rek moo am di di Lac Rose te donc je pense que autorité dañoo war a bu baax a baax secteur bi de ñu daal di ko jox gëdd gëdd ba nga xam te dina tax tey sur le plan économique mun na ci participer bu baax a baax. effectivement parce que bon am na yeneen sax dëkk yu am ay lac mais bu rëyee nii amuñu ko parce que mer morte moo fi am ak yeneen yoo xam ay micro lac lañu mm. mais bii étendue d'eau bi elle fait huit kilomètres carrés donc c'est c'est imposante par rapport aux autres lacs mm et puis particularité am comme je vous dis euh, tout à l'heure mooy dafa am ay aspect mooy l'aspect exploitation sel aspect euh, particularité boobu ak coloration rose bi man coloration laay wax c'est au niveau mondial quoi oui oui oui am na am na yeneen yu rose mhm. am na yeneen yu rose mais ay micro lac lan quoi d'accord euh, donc euh, même le ministre du tourisme il est parce que dafa bokk si ay produits phares le lac rose partout dans le monde dañ mooy mooy nekk li nga xam mooy agence de voyage yi seen première image ci seen ay Facebook mhm. tey jii booy jaay destination Sénégal mhm. Lac Rose dafay nekk image yi ngay jëkk wane te te ministère tourisme bi nga xam ne tey jii moom moo nekk euh, moonu ngang bi ñëpp mhm. euh, parce que faalewu ko parce que mosu fa sax ñëw bi ki nu fal bees ministre bi lañu fi ñëw def ay kii ay waxtaan mais pour vous dire que euh, duñ dem sur ministre du tourisme waaw ministre du tourisme mais xam nga xam nga xam nga sa kii boobu c'est que au Sénégal dafa am benn problème boo xam ne moo am mais xam naa loolu il faut que euh, maanaam euh, euh, ñu wax ñu leer il y des problèmes dafa am ay kii yoo xam ne ay ministères. dañ ci am maanaam dañ ciy intervenir. Mm-hmm. xoolal la Rose. il y a le ministère du tourisme. Mm le ministère de l'environnement. le cadre de waaw le ministère de cadre de mhm. vie gis nga. assainissement waa léegi wala assainissement xam nga ñooñu. waa léegi kan moo ci. Uh-huh. c'est que le problème moom mooy. et puis da ngeen di am na beneen ministère. Uh-huh. moom mooy. ministre ministre ministère bu territoire euh, territoire xaw ma territoire waaw parce que parce que euh, affaire mairie yi la tamit xam nga dafa nekk beneen affaire boo xam ne ñoom ñetti ñetti ministère dañ koo ŋànk mhm. waa léegi il faut que ñu xam kenn moo ci maanaam kenn moo ci am euh, kii kan moo ci am waa droit waaw loolu la mais kan la waaw c'est-à-dire que xam nga tey jii ministre de l'environnement Euh, moom moo fa def euh, moo yore wàllu environnement bi la doo c'est c'est une environnement maanaam euh, moom moo yore waa eaux et forêt par exemple eaux et parce que ministère waa eaux et ñu ngi dépendre si ministère de l'environnement te eaux et forêt ñoom ñoo yore wàllu gàncax gi waa ndox mi ak li nga xam ne moom mooy forêt bi nekk foofu parce que band filao bi tamit dafa jóge parcelle dem ba Saint-Louis jaar Lac Rose mhm. donc on a la bande filao là-bas mhm. on a le lac mhm. le lac c'est des eaux donc mën nga wax ni eaux et ñoom seen liggéey bokkoon na si lii aar Lac Rose d'ailleurs chaque fois bu ministre bi di di déplacé wu dañuy ànd ak ñoom mais malheureusement même boo demee tey jii ab Bambilor le bureau euh, agent kii bi office eaux et forêts ba fa nekk sa yaram day daw amul sax matériel bu accéder au niveau du Lac Rose même sax pour ñëw bu leen euh, woowee pour intervention au niveau des dunes ñu ñu leen abal ay oto wala ay 4x4 wala ay quad pour ñu accéder sur si bande filao bi mm-hmm. duñ mettre les moyens. Mhm. suñ agent ya nga xam ni teg leen fa. boo ñëwee si ministère du tourisme bi tey jii la y a la police touristique au Lac Rose mais amul dara dara amul oto amul téléphone amul gars yi 18 heures ñu teg góor gàddu seen saag ñibbi. boo leen woowee boo fekkee ñëw demoo nga seet si leen nga jël leen oto du dem te xam nga c'est pas euh, civil bi moom moo war a jël otoom di di yàpp un policier pour def ay intervention vraiment te yeneen teg nañ fa un police touristique. Mhm. day nekk image xam nga man dama bëgg tey muy eaux et forêt muy service d'hygiène muy la gendarmerie ku si taxaw si télé bi tey ji boo demee Europe boo gisee benn même un agent municipal sax mais il est bien habillé que yow citoyen da nga am respect parce que da am fierté mm-hmm. si agent mais tey ji boo demee gis agent touristique yi nekk la rose mm-hmm. nga xool agent eaux et forêt yi yow da nga ñii sax agent yi nga xam ne moom lañ teg ci banque yi maanaam boîte privée leen gën habillement mm-hmm. te loolu moo jëkk frappant comme image donc ñooñu mënunoo def loo xamante ni dina aar li nga xam ne moom mooy sunu environnement ci mhm. Lac Rose ba mhm. parce que day waree ni benn benn benn benn faiblesse mhm. boo xamante ni financièrement wala physiquement wala corporellement tu sens que gaañ bi mën nga ko mën nga ko corrompre mën nga ko euh, jënd ba def li nga bëgg te dara du si fekk loolu moo am si wàllu urbanisation ba Lac Rose mu toll nii presque c'est entouré de maisons te kër yooyu yëpp tey jii dafay interpellé li nga xam ne moom mooy viwu ki nga xam ne bëgg na xool lac bi mais tamit sur dundu dindunu lac bi mais sur tout l'écosystème bi fi amoon parce que dafa amoon ay picc am ay flamant rose am ay aigrette am ay cormoran am ay milliers d'espèces d'oiseaux yoo xamante ni dafa bokkoon ci attraction bi te buñ koy wax nag c'est pas particulièrement pour les touristes Mmh. Les droit d'aller voir des des paysages même tey jii le désert de l'homme pour c'est pareil c'est en voie de disparition mhm. donc xam nga ministère du tourisme rôle am dafa war a conserver ses produits touristiques waaw mais dañuy tu ci ministère rek ah. soo ko bëggee conserver mu ne leen kii mais day heurté wu ci maanaam euh, ci benn ministère mhm. mën naam ministère bii moo ko fa ëpp baat xam nga. waay waay waay xam nga lool la. voilà voilà xam nga loolu mais mais loolu moo tax ma ne. Euh, euh, c' est que euh, affaire bi mu nga commencé ca kaw man book sama xalaat. ni composition ni ñu defee ministère yi fi naan moo kiilu xool dama jox ne exemple bu gaaw rek xoola ministère gis nga waa INSEPS yii waa SNEPS di grève INSEPS mm. di grève parce que dañuy am seen diplôme te mënuñu leen dugal fonction publique mm-hmm. parce que dañu dépendre ci ñaari ministère bu sport ak bu éducation ils ont léegi nag problème bi nag ñoom ñoom loolu la ñoom du ñu xam kan la yow mii fu mu nekk nii yaa ngi nii. Mhm. tey jii yaa ngi confronté wu ak l'interlocuteur principal. Mhm. kan la. si dafa bëri façon y a le ministère de l'environnement. <laughs> voilà assainissement bi euh, surtout. normalement ministère du tourisme li mu waroon def mooy la promotion et la préservation. Mhm. parce que produit touristique. kan mooy sa interlocuteur. Ah, l'environnement yéen mais particulièrement ministère de l'environnement. mais déjà parce ak CRD bi sax bi. président waxee mbirum pôle urbain du Lac loolu ba léegi dafa am benn euh, benn phénomène bu mu jur foofu. Mhm. parce que ñoom ñoo koy séddoo seen biir. bu ñu waxee dañu am na pôle rek wala am na lu projet bu état def da nga gis euh, accaparation des terres parce que ku nekk day bëgg def benn affaire boo xamante ni après état subventionné la wala état jël ko affaire yooyu. Mhm. donc ça veut dire que li Gomis wax rek daf dafa dafa pëcc xoo passage saaroo <laughs> ministère boo dem. ñun leen ministère bi la moo war a lijjanti affaire boobu wala ministère bi moo moo war a dañ koy joxante si or que département bi li mu fa créé muy eaux et mm-hmm. mm-hmm. euh, bu leen mayoon doole bu leen mayoon doole li si li ci war ah accompagner ak police touristique bi parce que teg nañ fa police touristique teg euh, teg eaux et forêt mm-hmm. mais bu fekkoon ñaari département yooyu jox nañ leen doole ji war ñooñu peut-être dina mën def seen ay rapport ba pare mën a taxawu si euh, problème mu askan wi. gën lay yombal liggéey nag ak dooleel li nga xam ne moom mooy euh, mairie bi parce que mairie bi tamit am nañu seen responsabilité. Mm-hmm. mais tey bu fekkee dañu jël titre foncier lépp euh, hectare plus de 7000 hectares. Euh, jox ko waa titre euh, pôle urbain euh, de Diamniadio. Mhm. léegi ça veut dire que mairie bi amatu fa benn responsabilité au niveau foncière. mais est-ce loolu ça pose jëm sax question de titre foncier maanaam foncier bi ñu gis ni que amoon na ci fan yii ñu génn rek ndaw yi nekk foofu ca Lac ñu mm. ngi doon amal seen mécontentement maanaam génn fippu wax maanaam lépp li nga xamante ne ci foncier ay suuf yi nga xamante ne dañuy ñëw nit jël tabax bëgg fee def dara te yoo mm. xamante ne anam gu teguwul ci yoon. Mm. loolu noonu rek yéen ci mouvement bi ci seen ay combat te ban taxawaay ngeen amal ci loolu moom. effectivement parce que xam nga li fi xew mooy dañu nekk si zone boo xam domaine national domaine national nag tan que euh, citoyen bi demul def occupation boo xamante ni peut-être euh, mën na jënd wala mu mu am koo xamante ni dafa nekkoon lu yàgg ay ay jamono wala mu naan dama doon fa bay seen tool la woon ba mujj gi mu matérialiser ko def ko def lu ay kayit ay délibération yooyu mais loolu amul foofu c'est-à-dire que zone classée la en deux mille xaw ma deux mille deux mille deux mille deux mille dix huit état jël euh, mille hectares. Mm-hmm. pour def ko titre que titre foncier boppam pour kere li ñuy wax pour urbain du Lac Rose. Mm-hmm. donc pratiquement keneen ku fa am ay construction ak ay ay kii yooyu il faut nga amaat beneen négociation négociation ak état mais ñun li ñu fa bëgg a préserver mooy dafa am benn benn benn espace boo xam mooy la band de mm-hmm. mais aussi tamit ak ak la les dunes de sables ñu ko mën a préserver. ba environnement boobu mën a mën a adéquate ak l' écosystème et le tourisme. Mhm. parce que foofu la ñuy defee activités yi muy les activités quad yeeg muy euh, dromadaires yi muy fas yi muy promenade à pied yi balade ah, balade pédestre yi mhm. yooyu yëpp côté boobu lay amee mhm. te nekk fi nekk zone bu fragile boo xamante ni waruñu ko yàq ba ba euh, agressé bande filao ba ëllëg xëy na sunaan yu mën na am bu boobaa day gën a compliqué donc pour te dire que bande filao bi ban koy ban koy ban koy def. Mhm. depuis les années trente de Dakar jusqu'à Saint-Louis. Mhm. yaakaaroon na ni c'était un but bien déterminé defuñu ko fa rek comme kuy jëmbat ay fleurs ak affaire yooyu. Mhm. amoon na rôle bu muy joué. rôle boobu nan nan ko préserver c'est préserver l'écosystème et l'environnement. vraiment de de bi am na solo waaye Salma tënkal na ma nee na ma waxtu bi. dafa ma xoj quoi <laughs> waaye waxtu bi waxtu bi xoj nañu. <laughs> mais mu di information yu am solo parce que nag Lac Rose suñu patrimoine la. boo xam ne ñun ñoo ko moom ñun ñëpp ñoo ko war a préserver donc bu ñu gisee benn ndaw bu ko jar mu jaral ko combat bi mu jógee euh, foofu ba fii pour xëy na défendre les intérêts du lac dañ mm. koy jaajëfal bu baax a baax. di la wax xëy na yàlla baax na. yàlla yokk la kàttan balaa demande toutes les associations du Lac Rose dañu boolu ànd mm-hmm. ak le président ak le syndicat mm-hmm. pour mën a